di len ndokkeel ci bis bi di ko bokku ak yeen di ñaan suñu borom lepp luñu fi def ci ay yëngatu lepp yalla daf ko muy xew ñeel mboolem jullit mu ngi nuyu wa dekk bi yëpp gëna bu lol waye ñu nit ñu ngi nuyu suñu mbokk yi ñi nga xamne ñom lañ bayee ko and ak ñom daru salam comme ni Cheikh Ahmed ibnu Cheikh Amadou Basir jaaree won rek bu jaar ñu koy topak ndax matone sekk ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel serigne bi macha allah yawaaxit bi neex na ku dégg yawaaxit bi da nga xam ne maanaam lii lu wét takk la loo xam ne yow bu dekkee xam nga loqutul xarit bi yow fi nga toog doo mën a bouge ndax wax ji dafay leeg ci yow nañ waaw dara du umpe kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla ci loolu gërëm ki nga xam ne moo ñu baaxee loolu di Cheikh nga xam ne faydu bi moo ñu ko tànqalee fa mu bayee fu sori te ñu xamul fan la mu indil ñu ko tegal ñu ko si lañu ñu comme basan bu ñu neexee toog ci bu ñu neexee tëdd ci bu ñu neexee bëriñu ci ñu ngi nañu imaam di nuyu borom dëkk ku ñëw ci dëkk da nga nuyu imaam ku ñëw ci dëkk da nuyu borom dëkk kon ñu ngi nuyu imaam di nuyu borom dëkk di nuyu waa dëkk bi yëpp di xaasal nag daaira nga xam ne lii buy am ci seen yitt laa amee ñu leen di sant bu baax di leen gërëm ndax indi ngeen xéwal ci dund yi lu mel nii xéwal la ñeel jaami yam kon nag daneen sant daneen gërëm man su ma leen waxee sant naa leen yéen da ko gëm ndax am na fu ma jaar ak yéen kon su ma leen sant naa leen rek da xam ne kii di wax lu nekk ci moom la ndax dafa ngeen ma loo xam ne lu maa toog dafa wax te yàgg na te mosu leen koo bàyyi kon sant naa seen taxawaay daayira bi li ko dalee ci président bi Basir Diaté ñëpp ba ci ki gën a mujj maa ngi koy nuyu te di leen ziar waa daayira bi yëpp. di nuyu ba tey itam ki nga xam ne mooy nit na jayte di ku am pas-pas ci bi waaye nekk ku am pas-pas it ci kër Cheikh Adio waaye it nekk sama soppi bëgg ma lool te moom su waxee loolu xam na ne li may wax xam naa ko ndax fee laa nekk ci màkk waxoon naa ko fii gis nga lu baax loo ko defal lu wax ma gis sama tool saxul ci coobare yàlla ñu ji ko mu ne la ca war ci engrais maa koy joxe te booba man maa nga màkk fi mu yónni ko jox ko àq te loolu ba léegi ak mu jot daf ko continuer di ko def kon war naa koo wax jërëjëf war naa koo wax jërëjëf ci turu daayira bi war naa koo wax ci pas kër si Alaaji Umar ku def lu baax ñu la ko di nuyu ba tey wee baaxul di ko xam ne moom it am na lu mu doon si lu rëy fonk nañu bëgg nañu ngëm nañu te yàlla rek tax ak seen rajo mën ndaw fépp fu ñu teew moo xam poos moo xam fii si bu mu dem na ñoom moom koy bokk boobu jax teg kon ñu ngi koy sant moom it di ko gërëm di nuyu sëriñ bu baax bii nga xam ne moom it xaj yëpp ñoom moom ñooy bokk nekk ci gàmm gi ba gàmm gi tas bi ngeen di jàng yëpp maa ngi koy bàyyi xel wuyu wu ngeen yëkkati ñu moom boobu jeex kon moom xam na ne mbiram sañoo mandoo mu ngi koy xanc bu baax a baax a baax kon sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax sa taxawaay rafet na lool yal na la fi yàlla yàggal nga bàyyi la fi ba si kanam ak kanam di nuyu ba tey ki nga xam ne mooy Abdoulaye Ndour nekk action maire nekk ci dëkk bii moom it di suma xarit di suma wóllëre bi gàmm yi commencé ba léegi sa année dina ma toggal rek indil ma ko ñëw na sax si guddi gi ziar ma ne moom yaramam moo xaw a sutante mu ngi delluwaat bu mën a del siwaat yaram del si moom it ñu koy gërëm gërëm njabootam di gërëm it monsieur le maire bi nga xam ne moom la yàlla dénk ne commune Darou Salaam muy alaaji Moustapha Thiam moom it lu ko fi teree ñëw yaramu naq di jamaal yi ku na xam ne kenn wératul kon daal ci gàttal ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di nuyu waa sant ci yaal yi nga xam ne ñoom it ci turu Modou Cissé bañ dooree gàmm gi ba léegi ñoom moom ak waa dingiraay yeeg waa poos yi ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp ku leen dina jum ñu ngi ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp li ñu bëgg indi tey nag mooy ki nga xam ne mooy ci yàlla Muhammad nga xam ne wax naa leen ne bu xewu toon la maa xalaqa Allaahu shay'an yàlla du bind dara bam xewee la yàlla di dara ki xam ki nga xam ne nag bi mu xewee moo tax dara xew kooku su xewee ñu ñëpp war nañoo dem ci xew boobu te mooy bis bii tey kooku da lañ bëgg a waxtaanee xam nga gi ko yaayam ëmb fi mu jaar ba keroog muy am juróom-ñeenti weer ak judd gi mu juddu ci gàttal loolu mooy waxtaan yu teg mooy discours bi nga xam ne moom lañ jagleel tey buubu dem Cheikh Laaji Omar Ndaw radiyallahu anhu mu ne fi rajabin laylatan qara kat amal ñu ko sey ay mondo mu ne bi rusli wa amlaki wa aslimi xam nga weeri Arabi, yi mu ngi dale ci muharram safar rabiul wal rabi sani, jumaatu awal jumaatu sani. nga ñëw ci rajab rajab mooy ndeyu koor shahbaan ramadan sawaal sunu xixda sunu xijja muy fukki weer ak ñaar waaye nag ci weeru rajab te mooy ndeyu koor ci la ñu ëmb rasulullah ci rajab man ndaw mu ci weeru rajab laylatan maa xam nga ne rasulullah bi ñu koy ëmb dafa fekk weer waa ngi leer bi rasulullah di gën a àdduna dafa fekk weer waa ngee leer bi ñu ëmb rasulullahi ci bisub altine la waaye ba muy juddu it bisub altine la ci rajabin laylatan la si amoon la wax xalaa xat amala mu ci weeru rajab te mooy ndeyi koor ci guddi gu weex dor ci dëgg dëgg dëgg xamalat la ëmb kan moo di noori rosli ci leeri yonent yi wal amlaatu ak leeri malaaka wa aslihim ki nga ne mooy seen cosaan ñu ëmb ko te mooy rasulullah mooy aslu akwaan yi su ko defee aminatu mooy netti li li nga ne moo xew ca ëmb mu ne macha allah mosuma yëpp man amina ani naka man umiltu ëmb naa bii ci rasul ku la xam ne ku ëmb dana xam ne ëmb dana diis dana métti dana tàng mu ne waaye maasa ak bi ànd nii umiltu bii man yëguma dara ci ëmb gi mu ëmb rasulullah loolu day tegtale kéemtaan yonent yàlla muhammad mu ne walaa wajattu amuma fekkuma loo dafa newal saqiiratu lu diis maam yëgu ne amul benn poids bu may yëg ne man ni ëmb naa nit déedéet kama tajidu nisaa comme jigéen ñi di di di di di jànkuwante mu ne moom ma toog man aminatu mais ni kuy ne kuy këf nelaw mu ne wa aataani la ma dikkal haatin di ab dikk wa ana bayna naimun wa yaqsa maa ngi kuy nelaw diggante nelaw ak yëg ci maa ngi di mu ne fa xaaral mu dañuy wax moom ki ko dikkal ne ko al saad ki ndax yëg nga yow ne an na ki naka yow amina umilti ëmb nga mu ko ndax xam ne ëmb nga mu ne fàkk ànd nii daanaka man mu mel ni man aqulu maa ngi wax naan ko maa adri xaw ma ko sax waa ji na ko fa xaaral nga di ko wax annati naka yow Amina xat umilti ëmb nga di Seydi Haasi umma ci sangi bi la xeet moom nga liir bu ñu ëmb départ gul ca guddi ga ñu koy feeñu naan ko ki nga ëmb mooy sangi xeet sallallahu alayhi wa sallam te kooku mooy sangi yu nit mu ne wasaalikal yow boobu la bés yow man di bisub altine la moo tax seela yow man daw ne keek naadaam naadin naadam naadin dexla sawqi ardiatan asan xolal tiri bi nga wax ni sey yow man daw wax samam moy tag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Matamunah mu ne naadaa woote na mu aji woote bi ala sawti yon cay kawe baat ardi atan mu woote jëngeen asamaan an wasala noor mu an heey wasala jot na an nooru leer bi kamay rasulullahi mag noonam leer boo xam ne dañ koo nëbboon ilaariam yi ñu jëmee ko nag ci ruumu suñu maam aminatu bintu Wahb bi naatam naa dina la ma ndoom la beneen wootekat woote na tibaaqal ardi ki woote woon ci ngeen di asamaan la woote ki woote bii paa ci ngeen di la woote أن أملا من أني أملت أمنا آمنة آمنة أمنا بدياي بدياي تاير جليرك تاير هلمي تاير من قبل على من كل قبل من رسول الله وأخواني سيدا جمان من ما وخلا اللي فقعوا كلك بلغي دوام أخواني

sëñ Amady Ndao mu ne lan lañ wax xawlan joo xam ne fas yaan bi fasaan. bidaa xëy na xëy ko waa yow mbaa xam yëg nga mu ne ko lu ko mu ne mbaa ne xam rasulullah. daa wax waa mi. kan moo gisagum ci kaw suuf ku dul bi xam li nataakaat. wax nañu wax joo ne lottu dëggu وقنتلو في القصور مبصرة بحمد رحمة ماو جاد ومنادمي جيّن يمن من وقنتي وين الهور جنمية في القصور جنيدية مبصرة من أجل بنك بحمد رحمة جهنبك يرمانيكي في همبت رسول الله موجود كان يكون أمل wamun adamin ak ku ñàkkal li bëgg a wax mooy xam nañ ki nga xam ne mooy yërmande ki nga xam ne ñi tey kuñ xamal moo tax waaye ku ñàkkee mooy tax te mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasaajalu tasaajala tayru tasaajala de tasaajalu tayru tasaajala tayru li ibsaari mudribatan am na am na oh, kon xalaat la jami mu ne tasaajalu buy waxee kiisante mooy ni picc yi bu ñu nekkee mbooloo naaw ba ci asamaan si ñu talal seen bët di fàttali si kaw asamaan ngir bët ci juddu ëpp gi am ba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag tasaajal ak kiisante ba ca kaw ñu lëngaale seen mag kenn ku ne yaa foto foto naa ko yëngalee xew Yang li xew ki ñu am ba rasulullah sallam li ibsaari ngir bëggal mot rek ba tàkk ñu kontaan lool ñoom picc yooyu ñu ko suñu amoon ndaw na lañ doon def ne ab naa ak aj naa si xaar maanaam li bëgg wax mooy picc mu ñu wax xataa xat mu ngay bëggal morom yi xataa xatam picc mu ñuy wax sagal sagal mu ngay bëggal morom yi sagal sagal maanaam ab naa ak kenn ku ne sa doom a xeet ki nga bokkal jamaano rek moom la doon turan ñoom ñëpp dara la ci gool ci guy yeeg sotti yooyu ñëpp li nga wax ëmb gi ëmb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa basal wax bi ñaari weer ñaari weer bi ñu ko ëmbee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bàyyam faat mu am ñaari weer ci biir ndeyam mi nga xam ne moo ko jur dal rasulullaay juddoogut nekk jirib waaye yàlla nekkal ko dañuy nan te booba bàyyi mu ngi am ñaar fukki ak juróom moom Abdoulaye mu mel ni tumuraanke dafa doon dugg waaye rasulullaay du tumuraanke déedéet du tumuraanke de Abdoulaye ba jël rasulullaay dafa génnoon dem di commerce yi jógee Saam dem Madina di commerçant bi muy ñëpp nag la ko feebar bi jur sóoru mu ngi àndoon ak ay mbokkam bu mu ñëwee ba egsi Madina coono daj ko ak feebar ba métti mu toog foofu ci ay mbokkam ci ñi nga xam ne mooy bënni xat yi bun na mu toog fa weer ba nga xamee nii ña nga xam ne ànd moom egsi nañ Abdou Moutalib Abdoulaye dem na commerce ji ñëw mu laaj ñoom ñu ànd toog ne leen sama doom ci Abdoulaye ñuy wax ko la li xew ne moom li dafa feebar mu fa des ci ay mbokkam Abdou Moutalib woo doomam ju ji ñëw a xaaris yónni ko Madina li yatma ina ali mu dem gëstu xool lan moo xew bi ab bi xaaris ñëwee mu fekk bi muy yegg si waat gaañu na faatu na ci feebar boobu mu ñëw ñu rob ko ñu wax ko li xew yépp moom it mu delluwaat ci baayam li nga xam ne mooy Abdul Talib moo ko yeb wax ko li ko wax dafa xew yépp Abdul Mutalib nag da di am jàqare lool <coughs> waaye lu mu am am am li yàlla na ma dogal moom faw ndax ki am ñaari weer yaayam bii la jamaan ko faw mu judd ndax bu judduwuloon yéen ñii kenn du judd monde bi tuw naa wa de bu rasulullahi xewtoon dara du am aminati nag des fi nag léegi moom dong ak yàlla yore nit bokk yore koo xam ne ñaari weer la am ci biiram bàyyil génn àdduna Saya mandau mu Wabasara wasu Wabasara wasu min sarqin wa maghribi kullal woos am bi mursidil qadiim Mune ne njaayaan yi sax buki ak tini ak gaini Nyom nyop ñëpp ñi nekk penku départ nañu jëm ci xarfu ñi wuteeg sa borom naa ko yëngal li xew mbir ñu am yaayaa lii la ma de bukki yeeg gaynde yeeg ñëpp ku sa ci waxu ki bu tamay rasulullah min sharqin wa mahribi mu kulul wuxuus bépp njaay xam njaay xam mu ngay bég di xam mursidin xam tamay rasulullah alfahimi ki daa di dégg daa ta. Seex Tijaan sama na li kaw ni rahmatan lil xalqi kulli mu ne taaxat cooma dawaabul bihaari daabay géej te mooy jën yi ak jësit yi ak lépp lu ne ci géej ñoom it ñu ngi tëb lu toll ci 100 mètres duure ci ndox mi ngir kontaan ngeen di mën ko Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam دواب البحار نسيت نساتي غير كم بين كم في سوسو نمو دابيوي أكم بين كم كين سوس كم رسول الله لكوني غير نكم من رسول الله رغمة غير ما نقل خنيل من دي في كل يوم يوم وانتصر النور لامحا من بدوري أتا تكلم سامي noonu tasara tasaaroo na ak nooru gi moo yegg si fii ci Buuda tasaaroom gi moo feeñ mag moo feeñ Madina tasaaroom leeru rasulullahi ma ne moo daj xatim la tëb bokkul lu nit mos si leer foofu la bayee ko min bari haqiqati muhammadiya kooku mooy kansul muntasam mooy bari bu maarif lu may xam foofu koy xamee ci xaqiqatu muhammadiya lawliyaawu si lañ naan laqtaabi si lañ naan sidiqiine si lañ naan soodaayi si lañ naan saalihiine si lañ naan moominiine si lañ naan ci xaqiqatu muhammadiya te mooy leeru seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu rek lañ mën a yem nag te ñoom mën a léegi tasaaroo na butóor yi seen kër yi ñoom ñëpp leer gi sar ci biir màkk foo dugg ci biir kër yi yaa ngi gis leer gi ñu ngi cercere xataa takkalama ba wax saame cum aji nopp bi la ne ame leer gaa ngi may mayi ci biir kër yi ba jur yi nopp woon sax mënuñoo wax daa bi sax ngay wax ñu xam bëgg xam rasulullah wa tamaa saadatu wa tamaa saadatu ku def nii ñu tàggee leen teel Muhammad way tamasaadatul wal yaa mu maa jatatan xaaliqin noori misaani wal mu ne waj tamaa boroona asaadatu sangi wal yaa ña daway kawe mu majjatatan ñu way tegal li xaaliqin noori ngir aji bidi ci leer gi sil ihsaani te mooy yàlla kay borom ak rafet wa niami kay borom ak xewal lahum salaatu mu ne sànni yooyu ñu ngi julli di salmal ala xabarin ci rasulullahi asli kawaakibi rasulaay li nga xam ne mooy cosaan ak biddaw yi bi layli ci guddi maa asula min ànd ak lëndam wa jannatul xuldi suñu man ndaw mu ne keroog bi ñu xamee rasulullah yi aljanna wa jannatul xuldi te mooy aljanna yu bël ga nga xam ne bu fa tàbbi du doo fa jox xaala dina fiyaa abadan yàlla ci tàbbi barke Cheikh Hadji Omar Ndaw wa jannatul xuldi mu ne xat ca dëgg dëgg dëgg moom jannatul xuldi baa taj fanaanee na mu fatta atan di luñ ubbi awaabu abwaab waxaa la ilaha keroog bi ñu amee rasulullahi buntu àjjana yëpp la ñu ubbi yëpp juróom-ñaar yëpp. abwaab waxaa la ilaha ñu ubbi ko kañ laylatal hamdi guddi gañ am rasulullahi. bis yami. bis yami ngir borom ak màgg gi te mooy Seydina Muhammad. wa ahlaqanaa Malikun malikum wa asimatan bin nawri yasinana ukri wa tar ina wa ahlaka tegna momit kiyon bunta aji ni hubina kiyon bunta safari te malikun nar mo mun momit tay tej bunti yeb ken ko bunta safar kerek bis bi obe malikun nar tej bunti yeb do ñaari bunti yeb muhasibatan momit mu aji magal للنور ياسين الليل ياسين كما يرسل الله نافي الكفر إلى تدق جهفر والدر من أكتك تقيين وحمل تسعة عن طر أمتي ختمت الشمس بقداء الدنيا من وعمله أمك رسول الله تسعة جمية Jom ñeenti weer la ñu ëmb sayyidina Muhammad bankal sa baaraam rajab moy ëmb bi shaban ramadan sawab sunu xixda sunu hijja muharram safar rabi awal muy juróom ñeenti weer suñu mondoo mu ne ëmb bi ci saatu juróom ñeenti mu ne limay wax bu man rek mako wone an qur'i ummati mako jele ci sang yu weex dor no xamne duñ wax mu du ba juróom ñeenti yi waaye li matee fa tamati la dal di mag asaltu rasulullahi fi qaadi si tak li nu jumi ñeel bi dem wa arsalon bi amee juróom ñeenti weer nag fi ne ëmb di mel lan moo des jub wa arsalon wa arsalon tisatun li qawdi mawhida mawhida tafsir bil karam su yow man ndaw bu nekk rek bi juróom-ñeenti weer mate am na ñu ne weer wu ne am na yonent bu ñëw ca weer woowu am lu wax ak Amina muy juróom-ñeenti yonent ñu ne su yow man ndaw fii mu ne wa astirun ay yonent tisatun yaay juróom-ñeenti. dama takk siir la wa arsalun ay yonent tisatun yaay juróom-ñeent jamono mu ne si nañ lil xaw di ñeel jong ma ji dis aminatu juróom-ñeenti yonent yëpp ñëw nañ mawhida mawhida kenn par kenn tere wàcc na ci amina di ko ci ki nga xam ne moom la xam te moo la judd te mooy rasulullah li tafsiri ngir bëggal bil kërëm ci aji tekki te mooy seydina Adamu إدريس نوح المرسلين ونقل وجد إسماعيل سوديا من آدم moo njëkk a ñëw ñu ne ci weeru njëkk war a jàpp la Adama ñëw dam Idris ñëw bankat ñaari yu taali rek noon ñëw xillu mursalim te mooy Ibrahima xalilullah muy ñeent wan nañ loo jaddu Ismaïl muy juróom suuf ji xam ni Muusa kalimun yu wax ak ki wa xalifatu wada xalifatu Suleymaan ñëw Iisaa juróom ñeenti yonent ñoom ñëpp ñu ngi sa ñoom ndaw lu xew foofu mu ne xaamiratun xaamiratun سنة بتسمية سمعنا موحدا صفوة لم لا يحسن من بني حامل كان يدا أجي ديغال دورة ورسوي تماي آمين سنة بدا أجي نيو لن يكون ديغال بتسمية كتبتكو محمد محمد ñu ne ko kii nga ko bu tuddee tuddee ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne safatal am naa ki mooy tànn fi malaaka yi mën na sëñ ak mbindéef mi yonent mooy suñu tax yow de salal majiidu mu ne salaa yàlla julli al majiidu aji tedd gi di taslimi ànd ak salman bilaa dadin loo xam ne du am benn lim alayhi wal aali alayhi ci rasulullahi wal aali ak ñu ñoom wal aswaaji wal aswaaji ak soxnam wal buxami ak ay jàmbaaram fatara sam léegi nag li xaw li na rek mooy ki nga xam ne moom la kéemtaan yi xew ci ëmbam bi tamay rasulullah kooku mooy ki nga xam ne lawlaahu maa xalaqa laahu sayan duutoo noon ko rasulullah dimbali dara kooku mooy ki nga xam ne asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar mbindoori hi kooku mooy ki nga xam ne xaras kursiyu ajanna safara lawu mahfuz malaati min noorihi kooku mooy ki nga xam ne diina wujudun tabe wal huloomun xam wataatun topp yàlla lahaa xayn saxin wasuroona bi xaadirin ñoom ñëpp ñu ngi kontaan bi xaadirin dikkee ak imaan gi tamay rasulullah sallallahu waaw waaw ñoom ñëpp ci dikki Muhammad xam-xam kontaan diina kontaan na tebe kontaan na topp na ñoom ñëpp ci dikkat ak jëm bi tabay rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kooku may ki nga xam suuf juróom-ñaar ak asamaan juróom-ñaar puguruwu nañ ci nañ ci de kenn di ci sa borom kenn kan lam xam mooy ni yeneen ci biir rayaan dem xasabaan juróom-ñaar xot ci xasabaan juróom-ñaar dem si di muntaa dem fu soob yàlla mu wax moom foofu la la tiitaroo te mooy xasabaan na ko deel maa la gën moom la la tiitaroo li xat mi wa nasin wa moom jéegu yi rasul loolu loolu la pogri woon ne moom moo ëpp doole kooku mooy Seydina Muhammad kooku ki nga ne yonent yi jàll yëpp ñu doon bigal seeni xeet ne am na kuy ñëw yaati min baadi ismoo am na kuy ñëw sama gannaaw turam Ahmad lay doon képp ku fi jaar ci yonent rek yaa doon xamal sa xeet ki war a ñëw te mooy Muhammad kooku ki nga ne it ba may waaj di ñëw na ma doon may wax de wa bil majii li rahmatin tasuuru junudullahi busral mahaafi yi ma doom ne rasulullahi bi ngay waaj pour gane àdduna bil ma ji ci digg li rahmatin ngir indaale yërmaane mu ne waaye tasuuru junudullahi dana bégloo junudullahi borom yàlla busral mahaafi yi ay délégation kooku ba tey mooy ki nga ne te ni joomu is kuntu jixtinaa wa daa an nawaahi daara diine bi kaamil bi Rasulullah di génn àdduna biddew yi dañoo ñëw ba si su asamaan si jege leen day is kunt na ba nga xam ne yow Muhammad yaa ngi war a ñëw ci àdduna mu ne tabda daal di jóg wa daa ak nawaayi daara diina suuf si yëpp def nañi nit ki war a génn àdduna mooy Seydina Muhammad kooku mooy ki nga xam ba tey balaa mooy jëttu jinne yi dañoo dem si asamaan ci kaw pour di dégg di sàcc ay dégg waaye bi nga xam ne rasulullah yi di gën àdduna ñëpp dañ tàq xam nga qasidatu jinnin fi sihaabin fa jawiya gore way لقد سبيت الله شوق لنازي كل كده قبل صح بيت الله يجتو كجمو سوقا للكونتان للبيت li naasi bi ngir wàccu waay sallallahu alayhi wa ngir kontaan Cheikh El Hadj Omar Ndao radiyallahu anhu na déglu leen yéen yaa ngay nopp déglu leen ñi xam nañ gën a déglu ñi xamul na rawatina ñoom ma wax leen li war ak bu xewee ni xew foofu lañ toll ñu ci juróom ñeenti waaw bu xewee lii xew mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bu xewee lii xew te bu xewetoon dara du xew kooku mooy kan fa tallaha samsu fa tallaha samsu wal anwaaru saatiatun ماتم في الكفر أوسان شيدا جمان دومن فتلا فنكن الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم maanaam fenk na mooy léegi ëmb gi jeex na xanaa génn rek moo des mu ne waaye boobu walan leer gi min moom leeri saati atum ñu ngee jol melxati mu ne xamul foofu rek mu ne fa ci sabab soonu ñoo ma koy wax de ba ni xee ba pare alaa la fekk asatu rasulullahi bam fekkee leeri nag di may may ci jaww ji mu ne fa ci sabab soonu maxati la dal di faar am pour la yéefee bu rasulaay gane xam la yéefee faar de walaw saani la faari xërëm عن أمم شكل واختزاز مليك حديثا أترد وقت سقوط الدياء أو والقلم من وقت سا جاجمونا جاينا حرس الملك حرس يالله الحق يالله مدى دك yàlla rek ay dëgg yàlla mooy dëgg wal xaqu huwa allah wallaahu huwa xaq yàlla rek mooy dëgg waaye xaqum gi jox na ko Seydina Muhammad moom muy xaq Muhammad xaqu la kenn mënu koo moo tax mu ne almaliki alxaq gajamuna saatala bind aji kontaan dabaram ak bég kañ waxta sukkooti diyaari lawi waxtu rotok leeri xalaway te mooy Seydina Muhammad wal qalami ak waxtu rotok leeru xalima bi te mooy Seydina Muhammad ربيعنا لول لنوار مولده ويعبره بلا من چې ویرو نبی الله ول چې رسول الله کی صلی الله علیه وسلم الانوار بدا اجلر بوبو موږ ویر وانه tollu ci fimi léré ci bisab altine ci la رسول الله کرے aduna mu ne mawlido moy judom de ko sa yow man daw ñaata fan mu ne way yabbahu fukki fan ak ñaar ci la rasulullaay gane àdduna yaa diis la baa ñaar muy fukk ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rabi alawal ci la rasulullaay judd mu ne juddu googu xeetul feet la goo xam ne màggal nañ ko tasiman ak màggal goo xam ne ku ko màggal bi laa wax kon loolu bi daa de du biddaa de waaw du biddaa de maanaam turu biddaa yu mooy li ko yénente def saaba defu ko taabiyaan defu ko taabiyaan taabiyaan defu ko suñu ma dama waaye taxul taxul muy lu xay de suñu ma ndaw mu ne lu deful gannaaw bi loo xam dafa ko si yénente bi si kanamam dafa ko ci saaba yi dafa ko ci taabiya dafa ko ci taabiya taabiya loolu mooy biddaa lu waaye taxul mu xay de moo tax mu ndóob mu ne guddi gu yëpp moo gën góob mu ne tax na nag ba soxla woon nag na ci góob leen guddi niñ koy màggalee du génn ñaari maqaam yi la min xay si baaxu woo ko jaamam yàlla la ba dara nekkul jaam nekk ni bu ñëpp dee jaam muhammad ni ko dee ci yàlla kooku may rasulullah wa tafaqa al درا أن مولده خير layani لا ila إلا سيدي من وتفقد بونا القرون سني tànn na ñooy sang dëppoo nañ turoon ñoom ñëpp ñu ne ana mawliduhu naka juddug rasulullahi xayrul layaani ala itlaaqi nasihi lay yaxal sen boy ñap ñëpp dëppoo ne guddi gi ci bi juddu mo gën ci guddi yi guddi goo lañu magal mel wa kullu man janda janda def la ni ñu tàgg rasulullah di jam taayir sama ne wa kullu man janda mu ne kep ko xamne fatlu nga lil mawludi fatlu moy nga def yitte ci gàmmu gii tey moo xam ganaar la nag wala bëy wala xar wala xaalis wala ndox wala yitte wala xel mu rafet wa kullu man jadda wala nga bayee koo ci dëkk ñëw ci juddi rasulullahi wa kullu man jadda wala ña doon baas nga jàppale leen takkale leen baas wa kullu man jadda Cheikh rajo ma ndaw mu ne koo xam ne fatlu nga lil mawlooti ngir ñu jur ki tamay yow si ma xoo maanaam fatlu kii rek loo si jublu mooy ngir màggal ko papawso ñama ndaw mu ne ki def loolu texem bi ne bii njiyante bi xayru mun bi dul ñu nabb xooru ay dongoma hisaanu ñu rafet wa maryam ak soxna suñuy wax maryam wa asiyatu ak soxna suñuy wax hasiya min al khadiri mu ne ñii de bokkoon nañ taway ya waxta mawlid al halami waxtu ilal halam bi tamay rasulullah wa rawu jibril mu rawu la min jibril moom it teewoon mu ngi taxaw yuwaajiwaa mu ngi jubloo ak soxna si di Amina. mahal kiraami. mu ngi ànd ak way tedd. minal amlaaki. ci ay malaayika. lil hakami. waaye ñu defee ko nag ci ndigalal yàlla wa taala. mikaayilu. mikaayilu makaan. malaayika si la bokk. waaqifun. moom it taxaw na. yamina aminatin. mu ngi taxaw ci ma wax mi wax Jibril. ak Mikaayil ak asrafil ñoom ñëpp ñeel na leen sanaawun tagg wa tasbihun ak sabal li fi xidimi ñeel borom mu jiitu gi tamit rasulullahi wan taal baytu baytu rasulullahi mooy xadim wam tala al baytu mooy awlu mawjoodin وامتلأ البيت أوجده الله من أدرة القيد موجود من انتياب محمد لا وامتلأ البيت ويلي يلا نكفت wamtala albaytu mooy li yàlla njëkk a karee wamtala albaytu mooy li yàlla njëkk a génnee ci hitaabu bu toon wamtala albaytu yàlla xam na mën na sañ na waay dafa wamtala albaytu yàlla ba coobaram ajoo ci def kam njëkk a def mooy moo tax taw su jaamee woon bi ne ci diggante naam ak awlu maa konta. yaa ma. tuddoo loolu habibika. awlu muntaxab def leen ni gaa yaa wala waat muntaxab mu ne yàlla ki nga xam ne yow yàlla moom nga ñëkk a nekk di ko sos yaa raxmaanu yow mi nga xam ne yaa yërëm jaam yi yaa raxmaanu yow mi nga xam ne yaa yërëm kooso yaa raxmaanu tum joo da ko sos raw xabibika kooku mooy raw sa sopp bi ñu seen ab xabaar yow yàllaahu Cheikh Adama Ndaw mu ne Muhammad Xadim la wamtara al baytu mu ne Muhammad moo jiitu lépp ci aadama arwaax moom yàlla njëkk a bindi room bi mu ko bindee roow di sax ci baam jaamu boromam ci fukki hijaab ak ñaar hijaab bu ne sax fa junney hat muy fukki junney hat ak ñaar yonent yàlla muhammad jaamu na boromam fukki junne xat ak ñaar te dara xew kooku moo njëkk a jooxe xaqa xuboodiya man kaana aabidan bi xaaliqihi aqasatu xaqi kooku moo njëkk ko muhammad yàlla bi ko ko leer njëkkee si moom njub waaye tëjee ci moom it moom Seydina Muhammad kuy jub moo la gën a jub kuy jub ci moom ngay kooku ngay rasulullahi mu ne wamtala al baytu wamtala al baytu bil anwaari laamiyatan lahum soodun wa tansiilun li noorimi. mu ne néeg bi nga xam ne fala Aminata nekk dafa fee dell dell ak ay neer moom talaal bay bi lan waari fee sa ak leer laa ñàkk ñu mel ko dugg ci diggante palanteer di may may loo mu soxoo dund ñu ngi yéeg wa tansiilun ñii ngi yëg ñii ngi wàcc di ndokkeel ñu nuurihim ñeen seen leer gi tamit rasulullah fa waqaha alhibbu fa waqaha alhibbu bil anwaari muqtamidan بعد يدين وما أدود من ديمين من قال الموحل رسول الله إن مجدو من قمنا قم بوبر تلاتي ومبو mu ne dellu ma ma wax la rasulullah bi muy juddu nan la juddoo xam naa ko xam gu wér te laaj ma ko ndax kooku moo ma yar ni ne ci man moo ko def ci man néegam baay falul ma néegam day falul ma man rasulullah moo ma fal mu ne fa waqaa dana ni tàppi alhibbu rasulullahi bilanwaari ànd ak ay leer muhtamidan muy aji sukkandiku moom rasulullah xalaa ya day ni ci ñaari loxo bi rasulullah bi muy génn àdduna ñaari loxo bi la njëkk teg ci suuf huma ñaari loxoy rasulullah ak waddu ñoo gën a tabe minal bi yamin ci taw boo xam ne dafay waabe nga xam ne du dagg leneen woon naanam amul melax benn sotteeku rek ñaari loxo rasulullah moo gën a tabe

منتظرا ويأي تسارو نوره لير في الحرب كهرب والهجم أبن يتوم يب لير تسارو كمين قصور قيصر بالأنوار سائرة وفكرة جهرة للزاكن الرب من قصور قيصر جندي قيصري كما يبقى قيصر بالأنوار تلير رسول الله زائلة حصول قيصر عند قيصرية سائلة وإفين بالأنوار تلير ينتهي على محمد ما نام سند ديسا وش ده يعني سين في دوش بدي بالله سيدنا محمد مرسلة جهرة مساكين القرآن ñuy gis maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk diggante Qaysar ak Màkk boo ko doon dox weer na waaye keroog bu yéen tamit gën a ñi nekk ci xaysa li ngay gis ñuy dox ci mbedd màkk yi ngir nekk te boo ko doon dox doon toll ci weer mu shabbihan lil malik mu shabbihan lil malik maajidin samadin waamidan wa taasi baay sari mu ne bi juddoo mu shabbihan lil ak sabal di wax subhanallah moom lii fi lil maliki ñeel yàlla maajidin kala ñi tedd samadin kin jublu wa hamidan emo fof de yo aji santa ne ottaasi ñeel cusooli baa isi remam mi ki nga xam ne mooy aji dekkati yaxi fu noo ne alhamdulillah e subhanallah moom leen bi wa tahiban wa tahiban ودين إن سرته سما من تحتها قدرة الوليان سما mu yonent bi bu muy juddu dafa ñewale ñu ko diw ku ne xam ne luy baax mooy bu ne bu gane aduna dañ koy sang ba mu set diw waaye muhammad dafa ñewale diw wa tahiban dafa ànd ak parfum bi wa dahinan ànd ak diw lepp bi dafa ko kerete ngeen di jël di ko diw muhammad dafa ñëwaale parfum bi ak diw bu xiila suratuhu lutu bi nga xam ne ku jiitu dañ koy jël dagg ko si na man domoon am na xiila bu ne taqatoxo taqatoxoha dagg al qudratu ko kattan la nga aje kawe ani saham wala bi moo dagg moo dagg lu tuba lu tuba mooy li ñuy dagg boo juddoo mu ne ki ko dagg mooy xurutu billahi kaana kahina kaana kahinan wa maxtoor جكرتي وسائبة لم تقيل قاتل فجد lii bu juddoo dañuy jël parcelle bi jaarale ko ci ay bëtam tusngal ko Muhammad dafa ñëwaale moom wa maqatoo nan Muhammad bu muy ñëw dafa ñëwaale naggaan maanaam baaxu góor dafa wàccaale si kaw suuf moom Muhammad yéeme na de ah, loolu moom bi fitrati yàllaa ko bind noonu la ñëwaale moom Muhammad waaye nag wa saybatul hamdi maamum gi wax saybatul hamdi ah am na ñu ne xaatil fay mi mooy aji làggal aji dégg te mooy rasulullah am na ñu wax loolu ñu wax ne maamum jooju moo ko làggal maam moo ko dugal baaxu góor làggal waxu teggin la waaw waxu rafetal jëmee ci yonent yàlla Muhammad loolu loolu rekk ramat sayaati ramat sayaati suqbaan munawwaratun warat na ibliisu muhammad judo dañ leen dàq ci gannaaw dañ leen dàq fañ doon dafa sàcc ay dégg ñu ngir muhammad sànni ay jumi safara iblis daal di xaatu ne torox na ndax ki gën toroxal muhammad su ko defee defe naa ne loolu dina doy ci bàkkiru si yonent bi yonent bi toog naan yonent bi yonent bi yonent bi ba bët seet rek doy na gàmm waaw Muhammad Muhammad ni ñu naan sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ba bët seet wallaahi la asim waaye su ne maanaam pour mbiral rek toog di tudd Muhammad ba bët seet doy na gàmm Muhammad moom lañ xamee gàmm waxtaanee ko loolu may gàmmu kon toog naa Mouhamad ba ba seet jàmm la toog nëb secours naan salaatu ala nabi ba ba seet jàmm la kon ki doon waxtaanee mu ngi noonu di yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moom nee na yàlla jiital ku nangu moom la yàlla jiital ku bañ waaw ah, moom rasulullah yàlla jiital moo ne ci kanam de moo ne ci kanam de moo jiital de moom la yàlla jiital waaye it moo jiital kenn mënta dawa dawa daw ba ne ci kanamam mënta ne xaduna nag xàgg na fu ne waaye loolu moom ku ne xam ne fi moom maanaam moom loo dégg loo gis loolu yaa ngi koy gis moom te doo ko dégg dégg amul fi ne gis lu ne mu ngi xew waaye ku mën a fexe nag ba ne ci kanam rasulullah xam mooy sa kanam moo la méngit nga kóndil te ñoo mën da ko wax de xaddamahu llah Sifadin halal kubara Rasulullah Berfatwa Al-Minar Khadamullah nah, Ini tau Syafanin halal kubara Wal fadlu ashru minar karim ala nabi mu ne yàlla moo jiital rasulullah moo ko jiital alal kubara ci ponkal ci 313 ak ci téeméeri junne ñaar fukki junne ak ñeent ci ay yàlla daf sañ ci coobareem jiital seydina Muhammad lu ci mën njub gi ci moom la ko tàmbalee risaale gi hubbeeku na ci ñeneen waaye ci moom la ko tëjee lu ci mën ba def te rus بالمتعن سهوتنا فيها بمن جسم يا رشيد يا الله من يلا بدفتا كما سيغا تبلين بس دغ سجم بالمتعن سفوتنا كاي في حال من روح mu tegaat ne xatamtuhu rabbi bil mahboobi safwatina fi xaadamil jismi kooku moo jiitu nu nit di def ba du jiitu xamul jaam boobu mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi ku ñuy topp forcé ku bëgg a jubóog sa borom da ko topp moom Seydina Muhammad xamul benn jaaruwaay bu dem ci yàlla pour yonent mooy de moom yoni yoon yi ku bëgg a dem ci yàlla da nga jaar ci moom waaw amul fenn foo mën a jaaree te jaar ci yoon ci yàlla moo suñu man ndaw moom noppal boppam xam nga nit dafa war a sa bopp lu mantene ne da ngay xam ne mante ne comme benn jaama fi nii moom na yàlla ku bëgg yàlla gërëm nga si moom ngay jaar mu ko yàlla jëlal xomar ndaw jox ko yonent mu yar ko ko la ñu ndaw yar la yar ku yar la yar la yar

amul fenn fu nit mën a jaar te jaaroo ci moom suñu man doon na man bitina ya jawadu safwatana ay faftani abdika waaye ma ne jaam forno de xaraxtu ba am say suñu doom ba ci baat taxaw naa ko xara fëgg naa man xamat ma babaka sa bëgg bi damay rasulullah yow ki xam lépp te ñàkkoo dara ëppale ñëpp te li nga xam ne du jeex bu foofu tam yaa am dikka yéemal si jaam yaa jamono ndaw ubbil ko bunt yi xëy na ko war loo bëgg mu a ko xarit yi yéen Moustapha leen rek laa bëgg mooy nga woon sa doom sa tërëm doom waaw waaw kooku mooy Muhammad Moustapha mooy kuñ tànn Muxtaar mooy kuñ tànn Muntaxa mooy kuñ tànn tànn waaye Moustapha googu mooy ruuxan wa marifatan xam tas na lépp waaye mënoo tas na Muntaxa tax tas Mujtaba tas tas Muxtaar tas Moustapha Moustapha mooy Ahmadu loolu Moustapha loo xam ne moom moo xam la xalaat yi ba muy nekk Moustapha boobu yàlla bind ko dara Muntaxa mooy diinan wa maslahata Mujtaba mooy saatan wa martabata Muxtaar mooy lan Muxtaaru axyaaru xalqilaayi junnatim وخير أحمد مختار أصله خدمته مشيئا وخير أحمد مختار أصله خدمته مخزيا يا الله يا الله jàmbaa ngi noonu de moo gën ñëpp xayrum ahmad ñi may tudd ñëpp ki ci gën mooy ahmad sa turandoor ahmad ahmad Mau ki gën sant yàlla ahmad ki dàq sant gën a sant xam sant da sant lu kenn sant ahmad moo tax turoowu kenn xamul ko kenn jot ci wu kenn du dara kenn ku ko da ahmad kenn jotul waaw déedéet kenn mu saa joti kayfa tarqa ruqyaka anbiya ahmad la يا سما ما ها سماو أحمد لم يساوك في الهلا أحمد ليس النبي ولا أرسال كل مو أحمد حقيقة السر لأبي بأحمدنا من حسن القبيل ايكو بابا يا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وقيل